bees yi laa wax. nee na tuuti ah train yu bees yi laa wax. nee na tuuti eh eh waxuma arigoni de. est-ce que mën nga bàyyi sa nawle liggéey. non attends non waxuma <laughs> ah, yi nga xam ne moo. am bàyyi sa nawle mu liggéey. ay ca people donc Mbacké Sylla ngay dalal yéen ñaar de. ay ca woyo la noppi leen nag de. lan la yéen ah kay léegi yow géré mu wax Cheikh Diagne mu may jox café. ayca moom bu baax ah moom Cheikh na solo lool. <laughs> ay cokki de demal mhm. ma jaajëfal mbokku téléspectateurs yi Salma ci topp bi ak teewlu bi waaye li ñuy waxtaanee nag comme dañu nekk ci mois de mars dañuy nuyu ñëpp rawatina ajaratu Penda Diallo Gueye la force tranquille ci la bokk euh, ñu dalal fi nag Salma mhm. euh, oustaz Mbacké Sylla ñu war a waxtaanee nag mbirum viol mhm. mën nañu ko wax ndax jamono ji même bu fekkee sax mën nañ ne xew na waaye nag di euh, viol ci ci cib tënk rek. Mhm. ci lu ñeel suñu diine ak euh, li nga xam ne ñu koy faral di dund ndax parfois. Mhm. da ngay gis ñenn ñi nga xam ne dañuy ànd ak nit ca ba mu leen neexee wëlbatiku ne violé na ma oustaz ñu ngi lay ziar ak euh, <laughs> naka nga jàngatee boobu lembe. jërëjëf mhm. jërëjëf Fatima maa ngi lay fay nuyoo. di kontaan bu baax ci ma fi jot a dégg yëpp. di am mbégte lool nag ci sa question bi nga xam ne moom nga indi. wala sax sa sujet bi nga xam ne moom nga indi ngir ñu waxtaan ci. rawatina ci jamono ji ñu toll di weeru mars nga xam ne dañ koo jagleel jigéen ñi mm-hmm. te ko wax viol dangay tudd góor tudd jigéen eh, waaye dafa doon baat boo xam ne léegi dañ koo jaxase daal dafa bari njaxas ba nga xam ne xam naa bu fekkonte ne dañ ciy wax ci lislaam ngir nga indi li ñuy tuddee viol dëgg-dëgg tudd ko day jafe lool mm-hmm. ndax bu njëkk bu ñuy wax wàllu viol même ñi def eh, tasum xibaar dañ daan wax naan da koo sàkku te sàkku moom mooy lu nit demandé nit ba mu nangu waaye bu ñu ko doon wax ci olof nga xam ne kon da ngaan da koo siif euh, baat bi leeroon naññ léegi biñ demee ba euh, ñëw ci suñu jamono jii ci wàllu luwaay yi nga xam ne day taaweeku rek ñuy ñoddi day dem ba mu yàgg dootuñu tuddati siif waaye day dem ba sax viol sax dañ koy wax ci biir néegu sëy di wax viol conjugal nga xam ne léegi euh, tegtalewut ne rek maanaam viol mooy mooy sëy nit ci lu dul coobareem waaye nit sax mën naa am coobarewu ngeen jote ba noppi mu génn ne daf maa violé mën naa doon xale boo xamante ne nii peut-être euh, tollagut ci benn aas bi bu njëkk boo masaan dégg ñu ne violé na ko rek li mag ñi njëkk xalaat mooy euh, ku jigéen ki daa matagut dafa nekk xale mhm. nekk mineur mhm. wala yu demee noonu léegi nag magum jëmm mu ne léegi mën naa génn wax ne euh, dañ dañ maa viole léegi ñaaray am bu fekkee dañ koo siif nga xam ne siif la loolu mm, doon na loo xamante ne ñëpp dañ ko daan ñaawlu bu njëkk mhm. su fekkente ne ñaar déggoo ci seen mbir la Euh, waxtaane ba déggoo la ñuy déggoo séq ko loolu itam yàgg naa am ci àdduna ba àdduna sosoo ba léegi euh, li ma bëgg a wax mooy euh, maanaam njaxas mi ci am ci piste yu bari yi nga xam ne moo ci ubbeeku su ma ñëwee ci lislaam nag nga xam ne donc ci laay jéem a wax ci sariya li ma ci xam ak néew mooy lim xam moom mooy njaaloo maanaam sëy moo am ci biir sëy am sëy boo xamante ne ñaar ñiy sëy dañoo takkante ak kuy sëy ak koo xam ne takku ko wala ñaar ñuy sëy te Ah? ñaar ñiy sëy ah lan la wax ci loolu ñaar ñiy sëy takkante li ñuy def ak jaamu yàlla la hmm. ñaar ñiy sëy te takkante wul li ñuy def ak moy yàlla la hmm. léegi nag euh, degere bi muy am mooy attem njaaloo la koy jàppe maanaam tey bu fekkonte ne nit daa ñëw dañoo wax ne diw da diw dafa violé man ma toog fii jiiñ ko nit bu fekkoon sariya la déglu moom man dong dong dong dong dong ma wax ko hmm. buñ ma jàppee dañ may dóor juróom-ñetti fukki yar parce que dañ naan ma même bu fekkoonte ne yow dong yaa gis sax ñaar ñuy jotee waxuñu la nga génn takk rajo yi di ko nettali te dañoo wax ne bu boobaa ñeenti euh, maanaam am na règle yuñ ko tëral ba nga xamante ne xaw tuuti kon nga ne yàlla daf bu señoon dañuy maandu ci suñ diggante yooyu hmm. maanaam nit du ñuqutu nit euh, ci yàkkamti ci am yenn yenn yenn yenn information yi ci moom ngir joxe ko loolu hmm. mooy benn bi su fekkee nit dafa ñëw nag ne daf maa dal maanaam euh, xam nga ci wàllu njaaloo bu ma koy wax yonent saa salaam àtte na ci koo xamante ne dafa ñëw wax ne ko damaa njaaloo te damaa am soxna. Mm. bi ko waxee ku baax ki sallallahu alayhi dafa dummóoyu mel ni sax ku jëllale ndax bëggut a gaaw a dawal àtte boobu ci moom. Mm. ne ko xam naa da ngaa da ngaa euh, xamul rek da xamul li nga def rek euh, ndax bari na yoo xamante ne àggagut foofu ndax njaaloo tey bu ma ñëwoon tey ci ruq bi fekk fa góor ak jigéen. ma ñëw fekk kenn ki di génn kenn ki ne ca biir ma ne ah waa ji ni ma ko gisee muy woggantiku di wogasu di génn leer na ma ne dañ doon jote lislaam ni ma lan moo la ci wóor mm-hmm. ma ñëw fekk ñu toog dend mu ne ma lan moo ma ci wóor ñeent ñi koy fekkee mm-hmm. ñeent ñi duñ bokk sax côté buñ jógee maanaam ñun ñeent sax duñ bokk génne bureau Moustapha Diop wala sëñ Cheikh Niass ñëw rek yam ci benn mbir daal di daal di koy waxandoo waaye kii day jóge fii kii jóge fii kii jóge fii du ma ko gisit daal di gaaw woo sëñ Cheikh ne ko ne ko kaay kaay kaay gaaw xool day fekk ne ñun ñeent ñëpp dañ ciy yamandoo te du ñu fekk ñu noppi ñu fekk ñuy waaj mm-hmm. dañ leen di fekk ñu nekk ci yëf yi dëggantaan yaay mm-hmm. nga xamante ne voilà waaw jamono <laughs> waaw c'est-à-dire ah, euh, ni nga <laughs> ni nga euh, nga xamee ne du yombe noonu mm-hmm. moo tax kon tuumaal maanaam tuumaal ko yàlla bañe ko noonu gis nga tuumaaloon nañ ko ku gën Euh, ci ñu baree bari ci ñuñ koy waxal tey mm-hmm. muy sayyidatuna Aïsa mi nga xamante ne soxna si yonent bi la mm-hmm. Aïsa yonent bee ko doon denc muy soxnaam yonent bi bëgg ko lool ba waxoon soxnaam yépp ne leen euh, li ma yàlla jox ci samay loxo ma yor ko dama ci maandu ci seen diggante waaye xol bi nga xam ne moomuma ko ci Aïsa maanaam maanaam Aïsa ci nekk ndax ki jur Aysa di Abubakar bu yonent bi doon am xarit xaritam lay doon mm-hmm. pourtant Aysa xëy nañu rek ay rumeur tasaaroo tey bu doon tey suñ jamonoy média yi la mm-hmm. da nga naan xëy nañu rek nit ñi di ko waxtaane Aysa ak diw dañ doon dañ doon séq nàngam Aysa ak diw jote nañ nàngam donte loolu waxuñu ne da koo siif mm-hmm. waaye dañoo wax ne dañ doon njaaloo léegi euh, euh, dañ doon njaaloo ak da koo siif ñaari yëf yu bokkul la da koo siif gi maa ngi ci jublu da koo violé viol moom li ko gën a dansé ci réew mi ci la bokk man li may conseillé góor yi mooy ku jaar ci mbedd sax te doon génn góor seen jigéen muy ñëw bay woon nga dëpp ba jàll waaw parce que xam nga loo xamante ne dañ koo criminaliser lañ wax euh, moo tax man wàllu criminalisation googu léeg-léeg ma di ci poser ay question yu bari donte euh, damaa am ay jigéen am doom yu jigéen ba noppi yëg li nga xamante ne mooy mettit woo xamante ne ku ko teg nit te mm. coobarewu ci li muy daj ci moom moo tax bokkuma ci ñi nga xam ne dama naan euh, ni euh, dafa am nu mu def ba tax ñu def ko noonu wala déet damay jàpp ne kenn wërta joteeg nit ci lenn loo xamante ne nii du coobareem mm-hmm. ah euh, waaye parfois nga dem ak coobare dem ba ci biir ngeen euh, nekk ca mu ne la d'accord nga ne ko d'accord waaye boo leen demee ba ci biir bu xawee banque rek. ne la danga maa violé euh, yóbbu la euh, police. mooy dansé mooy dansé wu loi bi may wax nii. Mm-hmm. nga xamante ne tey waa ji tey xam nga tey bu doon dañu dafa dafa yóbbu police te bi mu demee bi mu demee dañoo jël temps wu xool yëf yi. Mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp ñu ne ci jàmm. waaye buñ nee criminalisé nañ am mbir lu mel ne viol wala dorog mooy waa ji moom daanaka tëj nañ ko ba noppi. Mm-hmm. c'est-à-dire bi mu ñëwee dañ koy jàpp. yóbbu ko ca kaso ba ba noppi door xool nag ndax moo ko defam defu ko te temps bu yàgg la fay def ñu door a xool ba xam moo ko defam defu ko ñaata nit ñoo tëdd lu yàgg euh, ñu dem ba ca àtte ba ñu xool xam ne ndekete deful dara ñu bàyyi ko mu dem deram yàqu réputation am yàqu àddunaam yàqu euh, léegi nag noonu mu amee ñuy gaaw a dem ci yoon noonu la amee ñoo xam ne ñu ngi koy wéyaale su suñu réew li ñu amoon bu njëkk mooy mbirum kersa la woon euh, da danaan am ci façon boo xam ne li ñuy njëkk jàpp sax mooy waa ji dafa feebar parce que ñun xamewuñu woon xamewuñu woon jëf yu mel noonu jëf yu bàyyi ma yooyu voilà dafa dafa feebar moo tax mu def ko yaay ji da daan suturaal doomam parce que sama doom àgg nañ ci kawam ci aas boobu euh, ëllëg loolu nar koo topp ngiruk dundam da ko daan nëbb lu man moo tax bi féministes yi jógee ngir ñu euh, criminaliser yëf yi loolu lañ ci doon jublu ndax dañ doon jàpp ne am na ñu ñuy violé yóbbu leen ci yoon te mujj fenn su ma dellusee ci lislaam di eh, ngir ma daanele foofu mooy moom li lim xam mooy njaaloo la xam ku séq ak jigéen te takkoo ko da njaaloo moom su fekkente ne ku amoon boroom kër la eh, ku góor ki am soxna seede yi daje wala ku góor ki saxalal ko boppam wala ku jigéen ki saxalal ko boppam ndax loolu mooy am seede yi ñoo koy gis àtte bi door a dal ci kawam wala man ma ñëw ne maa ko def maanaam waa ji ñëw moom ci boppam saxalal ko ne man maa ko def bu dee bu dee nag nit dafa ñëw ne diw dafa àgg ci sama kaw ay seede lañ koy laaj bu fekkee kooku dafa weddi am na léegi fu jamono toll ci ay possibilité yoo xam ne mën nañ koo jëfandikoo donte sax foofu mënumaa wax ci xar-xarub doj ni l'islam day wax ne ñu dem defi test ADN wala ndax day wax ñu xoole ay kay ay kii wala nangam waaye foofu tey bu doon ci masala fiq la li ñuy wax ijtihaad lay doon maanaam tey fuqahaa bi nitu diine ci bu doon moo toog ci tribunal ba mu ñëwee mhm. day toll foo xamante ne ci biir texte yi mu jàngoon ak contexte bi mbir mi xewee ci lay defee nag loo xamante ne nii volontairement la koy def moom mhm. euh, ci coobaree boppam mhm. génnee ci biir loolu ab àtte mën koo teg ci yëf yi ngir jàmm am. Mm-hmm. mais noonu xale jigéen ñi Salma nee nañu mënatuñu am. Euh, waaju baax daal ndax ñëppay daw. jamono ji oustaz xale jigéen ñi. Mm. nee nañ mënatuñu am. lonko bu baax maanaam euh, nan laa ko mën a waxee ci olof. coro coro coro far yu baax daal. da nga ko wax ni nga ci mbedd bi rek. mën am far yu ah. baax ndax euh, jamono jii ku ku ku la waaye jege sax ñoom góor ñi dañuy yaakaar ne diw mii daf ma. mën na xëy xëy xëy rek dem yóbbu ma ne ma violé na moo tax moo tax moo tax moom moo tax wàllu viol moom di ko laaj di ko laaj l'islam ci Sénégal naan charia lu mu ci wax. daanaka yeb sariya la ak tooñ ko mhm. parce que moom dafa am fu mu fu mu tegoon baaraas bi ne buñ ko paase mhm. buñ ko paasee ba dugg ci biir bala fay xew xew ba noppi ñu bëgg koo wax ne ko yow àtte ñu mhm. daanaka dañ koo tooñ ndax yàlla moom laa tax xërëboo la waxoon léegi waaw bul ko bul ko jege léegi yow euh, wéet mën naa am euh, maanaam rendez-vous mën naa am solo noo wërta solo mën naa am léeg-léeg sax mu ne d'accordoon naa ci ñu def yenn yi mm. waaye d'accorduma woon ci euh, mu àgg ci jëflanteek man d'accorduma woon ci euh, mu euh, maanaam la war a xew-xew ah mm. léegi kon lu oh. ñuy wax ci viol conjugal kon parce que ñaari way denc non viol conjugal amul viol ah. conjugal moom sariya ah, xamu ko point de vue islamique dama am <laughs> xaar xaar ba am am solo c'est à préciser gis nga viol conjugal mhm. góor gu forcé jabaram mhm. loolu mbirum mbirum nit la nit moo wërta àgg foofu affaire boobu naqariwut affaire bu neex la léegi nag bu ñu demee ba di ko forcer te neexatut dañ koo war a soxla mm-hmm. eh, dañoo war a travailler kër gi ak environnement bi millier bi ba ñaar ñëpp soxla ko ñu jotee mm-hmm. su fekkee soxlawuñ ba forcer di ci amati yëfu bàyyi ma la léegi yow boo bu nit forcer soxnaam ba mm-hmm. jote ak moom euh, l'islam amul dara loo xam ne wax na ko foofu non xam nga xam nga forcé soxnaam mooy l'islam moom li mu li fa mu doon wax dafa jiitu foofu da wax soxna si ne ko bu sa sox bu sa borom kër maanaam soxlaa cest à li nga moom nga di ko jël moom sama téléphone bi xam nga xam nga soxna si damaa am ci moom wàll woowu àq boobu àq boobu ci àq boobu ci sëy bi mm-hmm. jigéen ji moomu ko bañ koy forcé ku góor ki moomu ko bañ koy mm-hmm. forcé mm-hmm. jëkkër lañ may lu mat 4 mois wala 3 euh, mu téye boppam ci soxnaam. Mhm. bu fekkente ne am na lu mu koy yar ci lu ko saree amay. waaye bu mu ko ëpp. Mhm. te mer moomu a doon ci merum lal bi. Mhm. léegi ma moom sama téléphone bi wala ñu bokk téléphone bi ma bëgg koo jël nga ne ma doo ko jël. ma forcé téléphone bi jël ko woote ñëw tegaat nga ne ma dañ laa forcé loolu kay. yenn wul maanaam. ma man benn précision laa bëggoon. Euh, euh, c'est vrai que jëkkër ak jabar ay way dencante dañu war a nekk ensemble. parce que loolu mooy objectif bi sax pour mën a am ay njaboot ak yooyu. waaye euh, Oustaz xam nañ la a est-ce que nit góor mun na violer. jëkkër mun na vérité jabaram. Mm-hmm. <coughs> léegi lan mooy lan mooy. lan mooy lan mooy viol mooy. mooy kon mën naa siif jabaram. forcé waaw mooy mooy mooy mooy tëddee ko te te nanguwul. Mm-hmm. te nanguwul forcé forcé mm-hmm. ko te nanguwul. ñu ne loolu amul ci lislaam du loolu la. waaw ah. léegi euh, euh, jigéen jigéen war na mën a toog par exemple. jàpp ñàmburam ne moom du sëy ak jëkkëram parce que bëggatul jëkkër ji di ko forcer. mu wax ko ni viol la. jëkkër ji ne ko du ko fase te day continuer. di ko tëddee. d'accord jëkkër ji ne euh, soxna si ne ko di nga ma fase mu koy violer di ko violer te amul choix kenn mënulu ko dara te mënul dem sëyi feneen wala mënul dem sax. am liberté. nekk léegi léegi kay loolu moom daa bokkut bokkut ak li ñu doon wax léegi. loolu beneen cas Euh, jigéen joo xam ne dafa wax ne bëggatuma sama sëy l'islam da koy ubbil bunt mu génn ci sëy bi yàlla forcé wut kenn ne ko far force da ngay toog ci sëy góor bu doyalee ci ab sëy day wax ne wocc naa la mm. wala may naa la sa baat wala nangam baat yi ñuy wax ngir sëy bi jeex mm. sëy bi jeex ci sariya la ca des doon mbirum yoon xëy na bu ñu koy topp jigéen bu demee ba doyal ci sëy ñaan baat mm-hmm. euh, jëkkëram bañ maanaam bëggatuma la mm. bëggatuma fee nekk kooku jëkkëram amatu sañ-sañu joteek moom ci sariya bi mu ko waxee loolu benn jëkkër ji da koy fase ci ni mu ko bëggee noonu mu dem. mënu ko da ko war a fase euh, euh, euh, waaw ba tey li ma bëgg a wax benn la benn la ci yooyu rek. parce que ñaari baat yëpp ñoo bokk lu muy tekki. non non sëriñ bi ñaari baat yee bokk lu muy tekki. Mm. jëkkëram da koy fase mooy jëkkër ji jëkkër ji may déglu man. Mm-hmm. di déglu li a wax. kooku da na fase kooku. Mm. léegi nag bu fekkente ne nag daf koo bañ a fase. Mm-hmm. bu fekkee da koo bañ a fase. Mm-hmm. ba léegi bunt bi tëjuwul. Euh, ku jigéen ki day àgg foo xamante ne nii day summeeku day fay alal euh, ndaw si dafa ñëw ci yonent bi alayhi ne ko damaa bëgg a tàqalikook sama borom kër hmm. damaa bëgg a damaa bëgg a tas ba mu ko waxee te amut dara loo xamante ne nii moo tax euh, mu bëgg a tase noonu peut-être dafa doyal ci sëy bi hmm. wala nëbatu ko wala am na mbir yoo xam ne mënu koo wax yonent bi da ko ne ba mu lay takk lu mu la joxoon hmm. mu ne ko tool bii taqaloo kër gi la ma mayoon mu ne ko delloo ko ko mu delloo ko lool la ñuy wax summeeku cib sëy hmm. moom ngay dégg ñu naan fay alal hmm. wala nangam jigéen joo xamante ne sa boroom kër daf laa téye cib sëy hmm. yàlla nee na bu leen gàllankoor nit ñi bu leen gàllankoor jigéen ñi yoroo ko bàyyiwoo ko sëy moom dañuy man a ànd ku góor ki fase mu simple bu ko mënut ku jigéen ki fay alal te dem wala mbokk yi ñëw waxtaan tam dem jamono jooju loolu am nag nga xamante ne ci lañ nekk amut forcément damay sëy ak moom foofu moom sarea parce que nag mën nga bañ a ñaan baat mais tey nga xëy yow ak sa xëy na xuloo neexul amoo envie wala sonn nga sa jëkkër ne day sikk ak yow par force loolu divorce amu fa. mais forcé na la léegi euh, mooy li ma doon wax léegi ne loolu daa neexut xam nga loolu itam bu dee euh, couple bu naqaree waral loolu. Mm-hmm. léegi euh, nekkoo tey. xam nga xam nga souvent damay damay wax ne li naqaril sëy yu baree yi ni ko saree lee dañ ko dul defee noonu mm-hmm. gis nga li ñuy séq noonu ci lal bi dañ koy waajal toute la journée maanaam man ngaa wax ne bu fekkoon dañoo liggéey bu ñu wàccee rek lañ ko war a commencer préparer bu ko kenn ki soxlaa kenn ki soxlawu ko bañ koy forcente rek li war a am amut mais mais nag courant bi dafa war a jàlle noonu mm-hmm. su fekkee jàllewul noonu ba nga sonn te sonn dong la wala ñàkk am envie dong la am na communication boo xam ne bu fa jàllee siif boobu wala wala boog forcé boobu du fa am mm-hmm. léegi nag bu fekkee loolu jàllu fa ba mu forcé la da ngay xam ne dangaa am jëkkër ju feebar mm-hmm. wala jëkkër ju feebul mm-hmm. yoo xamante ne bi ay yëg-yëgam ñëwee mënatu koo muñ mu jël lim moom takk ko ngir mën a satisfaire boppam mu satisfaire fa boppam lam def du ak mooy yàlla du bàkkaar aussi ñu ñu terminer foofu rek <laughs> oustaz maanaam looy wax ñi nga xam ne dañuy euh, banque ba pare di sàkketoo viol xale jigéen ñi. non loolu kay ak leneen lu mën di doon dafa am yoo xamante ne moom mooy santaas rek santaas nit tuumaal as mm. yàq yàq dundu nit. am na koo xamante ne jàpp naa ko ci point maa ngeeg ay image am maa ngeeg ay audioom maa ngeeg nangamam tax nga di ko jël di jël alalam la nga cay lekk dafa rib dafa nekk lu baaxut te bala ngaa faatu yàlla weer la ba nga ba nga ba nga ba nga weeru baneen baneen nàññi moo xam nag ci ci côté boobu la moo xam ci beneen côté la ñu baale nga tàggoo <laughs> jërëjëf xam naa bég bég bu baax a baax rek bég ci waxtaan wi mm. bég itam ci euh, tomb bi nga xam ne moom nga indi mm. ndax bu yaatu la ci pénc mi boo xamante ne mm. euh, dañ koy dañ koy dañ koy waxtaane mm-hmm. yombut. Mhm. en tout cas man bu fekkoon am naa lu ma ciy wax. Mhm. mooy eh, la yàlla waxoon saxaaba yi bañ tuumaalee Aysa ne leen ab ne leen as góor ab jullit day wax ne nangam du ma ci wax. Mhm. maanaam buñ la waxee ne la diw dafa def nangam da nga doon ab jullit da nga naan jaaduwut ci man. ma yëkkati sama làmmiñ di ko teg ci loolu ci derub nit léegi nag gannaaw euh, yow ci sa bopp bëggoo ñu def la noonu bul def noonu kenn bu ko defee jàmm daal mi ngi noonu Salma euh, noonu la demee bu ko defee dinañ faral sax di ko dalal ci yeneen kii ndax mhm. genre yi sax euh, day am solo te continuité lay doon mhm. jaajëfal mbokku téléspectateurs yi ci topp bi ak teewlu bi ak ñi nga xam ne nag ñooy waa diaspora ci la ñu bokk